comme ça presse bi yobale ko Yalle yon ñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam gërëm wajur yi sante mag ñu bax ak nit ñu bax ñi ci Sénégal yépp nga xamni sen barke ak sen leer mo tax Sénégal doon lu mu doon di gërëm di sante mbokk yi xarit yeeg ñëpp di gërëm président Macky Sall bu ma nommé won ministre de l'intérieur tay def nekk fi mu dem ba ma man fi tok tay di wax kóllëre ginnaaw lay lay fayte sant ko gërëm ko ci ndax ay Sénégal yu bëree fi nekk war ko mën a yore bu mu mettee mu xalaat ma ci woow ma fi man nangu fi ñëw ci condition bi nga xam ni xëy na suma mbokk yu bëri sax duñu waxoon ni yow da ngay xaru man leen comme tànk am na soldaar yu nangu joxe seen bakkan bàyyi nu dem nu joxe nu itam suñu bos rek ndax comme loolu la réew mi laaj fu mu toll woon nu nangu fi ñëw yàlla def ci sutura li fi xew ci jamono élection boobu nag bu nu jàll koog jàmm mën di ko wax du du ngóora ndimbalu sunu borom la ndimbalu yàlla moo am yàlla def élection bi jàll ci jàmm nu voté ci jàmm yàlla jox réew mi président Bassirou jomaay jaxaar Faye nu koy ñaanal yàlla mu jik ko jig réew mi te noon ñu ko ñaane woon ci njëlbeen bi keroog bu ma voté ba pare loolu laa ñaanoon yàlla na yàlla jox réew mi ku gën ci nun nanu ko tànnal def ko ci xolu nit ñi mu tànn ko parce que réussir nun ñoo réussir donc nun ko ñaanal mu réussir nu taxaw ko pour mu réussir nu am ci yaakaar nag ci pàcc bi mënu dénk ndax ku yaakaar na lu mu ciy mën man mi fi dem mi mënuma ko ci général Jean Baptiste est sunu mag di sunu xam ko ndax ñoo bokk état bi mi conseil national de sécurité bu mu nekkee au commandant de la gendarmerie ma le directeur de cabinet après nekkoon ministre du pétrole donc jot liggéey ak moom tuuti lu ma mën ci moom mooy ku dal la xam-xam la donc loolu yëpp soo ko boolee mu jóge gendarmerie nationale commandé ko ñëw commandé ministère de l' intérieur tey nga xam ni police nationale ci biir la nekk donc wàllu kaaraangeeg sécurité waru ko jaaxal donc am na ci xam-xam bu mat sëkk bu war a tax mu mën a téye aspect boobu yeneen aspect ya nga xam ne moo ëmb ministère bi moo xam wàllu élection la moo xam wàllu diine ji loolu ku nekk ci Sénégal rek war nga ko mën a gérer ndax su dee élection yi am na direction bu koy gérer ba bu leneen di ñëw ñu xam ne loolu la autorités yi def nu nu jàppe ko noonu mais wàllu diine bi moom yaakaar naa moom fu mu juddoo yaroo fa war na mën a xam xam na diine parce que nitu diine la dina mën a xam xam na réalité Sénégal war na ci mën a taxaw taxaw bu rafet ba Sénégal ku ne nekk ci jàmm ndax loolu mooy Sénégal dañuy fàttali toujours ni Léopold Sédar Senghor moo njëkk jiite Sénégal chrétien la woon jiite na ko ñaar fukki at di chrétien jabaram di chrétien te indiwul benn coow ci dëkk bi ab Abdou Diouf mu ci toppoon jullit la woon soxnaam di woon chrétien muy lu rafet indiwul coow Abdoulaye Wade mi ci topp jullit la woon soxnaam di chrétien di tubaab indiwul benn dara indiwul benn jeexi jaaxa ci dëkk bi Sénégal ngay dem Joal Fadiouth bu mu moom xam naa sorewu fa fekk fa ay armel yi nga xam ni jullit dafay tëdd catholique tëdd fa soo demee Casamance am na fa loolu mooy Sénégal loolu mooy nation sénégalaise loolu mooy sunu force donc moom présence am fii symbole la pour gën a dëgëral loolu pour gën ko firndeel pour war ne nun benn nation nunu certes en construction waaye benn nation nunu donc di ko dalal di ko ñaanal jàmm di ko fi ñaanal euh, ndam di ko wax ni mën na compter ci administration bu baax bu mu fi fekk bi man in jotuma fi indaale kenn ndax donte ne amoon naa jot bi sax man tàmm may dem fenn di ñëw di bouleverser noonu rek donc collaborateurs yi mu fi fekk yi laa wóolu rek di liggéey ak ñoom ba yàlla def résultat bi donc résultat bi su amee seen résultat la ñoom seen ndam la ñoom ndax ci ñoom laa wéeru ba li nit ñi di wax tey résultat bu rafet la am mais dellu di wax rek loolu ndimbalu yàlla te ndimbalu yàlla nag ñaanu mag ñi baax jeen ci jiitu donc di sant di gërëm kilifa diine yëpp ci seen ñaan ci seen taxaw li ma yëg ci lu nu wàcc ci kaamil ci Sénégal pour jàmmam élection yi jàll ci jàmm xaw ma nu mu toll te li ma yëgul xam naa moo ëpp ku nekk ñaan nga ci sa diine ak ci sa gëm-gëm pour yàlla def jàmm ci réew bi ndax Sénégal jàmm moo nu jig yàlla na jàmm continuer ci réew mi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di kontaan nag ci teewaayu kilifa yi fi daje yi tey parce que lii day wane ni mandarga ku fi ñëw keet ku baax la parce que li ma gis tey ci ay kilifa ci salle bi gëj naa leen gis ci daje ci qualité nombre de généraux yi rek macha allah du ma ci limaat kenn mën nunu fukk te loolu day wane ni donc moom fu mu jógee fa naw nun ko respecté nun ko jox nun ko cër yéen moom itam ku baax la ndax moo leen invité dalal leen donc ñu ngi ciy kontaan di ñoom fii di ci gis suñu ay mag yu baax yi nga xam ne liggéey nunu Sénégal yu nekk muy occasion nu rendre leen hommage ci liggéey boobu ngeen defal Sénégal Léopold xàmmewuma la woon ancien DG de la police ak Codé Mbengue maa ngi leen di dalal di leen saluer bu baax Merci, Monsieur le ministre. À présent, nous invitons respectueusement Monsieur le ministre de l'Intérieur entrant de bien vouloir euh, prononcer son allocution. Monsieur le ministre de l'Intérieur sortant, Madou Maktar Sissé, mon jeune frère et mon ami, Monsieur le secrétaire général du ministère, Messieurs les directeurs généraux de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, Madame, Messieurs les directeurs de cette même administration centrale, Messieurs les officiers généraux, messieurs les anciens directeurs